possible leurs préoccupations. C'est ça le, le, la question. Et c'est pour ça que je ne veux pas cette discussion entre, euh, et techniciens, parce que ce n'est pas ça l'objet. L'objet, c'est que ce projet a été mené d'une certaine manière. Les on sait qu'ici, c'est de 25 000 personnes euh, au mètre carré, et quand le besoin en équipement et en, habitation, la répartition des lots et la répartition des, des équipements collectifs et la prise en compte des questions environnementales ne répond pas forcément aux meilleures règles d'urbanisme. Ça, on peut être d'accord sur ça. Et c'est ça la préoccupation principale. Pour le reste, c'est des choses que nous traiterons au niveau des bureaux. Donc ce n'est pas une discussion entre euh, deux corps, je suis là juste pour mieux comprendre les préoccupations et, rassurer les populations. D'accord 147 parcelles yi 40 parcelles rek lañ ci joxe ñi nga xamante ni moo ko taxoon a jóg population bi nga xam ne ñoo yoroon document yor notification noonu lañ ko jox ñeneen ñi fii moo ëpp coow géejawaay fii jaarem li dégg lépp collectif bi la di booba tey ñuy xeex lii moo duggee moo ko moo ñu ko joxoon avant muy dem pour ñu demoon ci directeur urbanisme bi yóbbu ko fa booba tey amuñu réponse waat dem nañ nag directeur bi dalal ñu bu baax koo xamante nii dix ans lañ fay def à chaque fois heure bu ñu demee mun nañu toog leen moom moom mënul si def dara loo xamante ay autorité mu waxuñu ko mais pour problème bu ëpp ci géejawaay ci bande bi fii mooy njaarim la amul y a trois hectares cinq cent yoo xamante ni président moo waxoon nañ ko jox ñi nga xamante ni ba di say waroon na leen seen biir amul kenn ku si bokk ñu jël ko jox la ko mun nañ tudd seen tur fi mais du respect pour ñu wax ko donc yaakaar ne bu ñëwee fii ñu war nañoo contacter parce que ñun ñooy impact dem nañ gouverneur pour ñu dalal ñu préfet bi fi nekkoon Bolone dalal nañu mais boobu ba tey amuñu ay solution lii ba moo duggee waree dem la ñuy bind lettre bi koy bu si directeur urbanisme dem nañ mu dalal ñu wax ñu wax bi rafet nañu nañ xaar ministre bi ñëw bu ñu ñëwee dinañ wut audience mu yóbbu ñu fii ñuy wax lu ñu a nëbb waxoon ci tribunal bii 2 hectares lu ñu bâtir man ñëw naa natt ko muy lu leer naññi lu leer naññi population bépp xam ci ëpp problème mooy njaaram mi amul ay fii am na ñoo xamante ni plus de six cent et quelques li ñuy def ni mm. population yi ñoo tax ñu di ko def mm. dégg ngeen le chef président de la république Bassirou Diomaye Faye li mu wax ba demee Mbourkat mm. la mu wax Mbourkat moo valable fii même décision yi la ci prendre donc li ñu bëgg li tax ñu arrêté lépp parce que dañu bëgg a defaraat lépp ba ñëpp xam ne lu ñëpp bokk waxtaanee ak discussion moo koy moo koy sotti donc dama bëgg ngeen rassuré wu c' est que maa ngi recevoir demande collectif yu bare mais foog ngeen comprendre ne balaa ñoo mën a régler euh, situation yu mel nii foog ñu jël temps bàyyi nit ñu def seen liggéey def gëstu def audit ba lépp leer ñu redistribuer lépp organiser ay discussion xool municipalité bu nekk lan la soxla ci population xool aménagement urbanisme bu gën a baax pour nit ñi ñu doxalee ko noonu loolu moom bëgg naa ngeen rassuré wu ci comme gis jot ngeen gis directeur de l'urbanisme moom lu yegsi dina yegsi ci man. Mhm. kooku moom amul amul problème le moment venu dinañ ko rek dégg ngeen. merci beaucoup jërëjëf merci beaucoup.

il faut que ñu jàppale leen Mais de toute façon, c'est fini. Hein. On, a, on a réflexionné. Vous avez réflexionné Monsieur le maire, celui qui a. a réceptionné avec les délégués de quartier, les imams. Donc bientôt ça devrait être. En principe, cimetière catholique C'est même chose. C'est la même, gestion. très bien. a un marché. ici.

monsieur le ministre géejawaay yëpp bëgg nañ nga jàppale ñu ci mooy les équipements sociaux si le patron du cadastre dit que mënuñu def mënuñu leen a wax fan la nekk te terrassement bi pareegul au moment où l'ancien DG de la LONASE signé un pacte avec un entrepreneur di fi tabax ay cité te terrassement bi pareegul ba tey mais empêché wul ñoom ñu ngi continuer di construire ci opacité totale à l'insu des cinq maires et du maire de la ville boobu mooy benn ce que à l'administration dafa simple les équipements nañ ñu wax nañu sur le papier mais on les voit nee tribunal bi mi ngi nii cimetière yi ñu ngi nii loo bii lii loo lii centre commercial mu ngi nii eh, piscine mi ngi nii mi ngi nii mais sur le terrain monsieur le ministre nañ ñu wax nañu lii fii lay nekk lii fii lay nekk l' administration locale nous dit que non mënuñ leen koo wax te sur le papier ça est là xanaa lii du plan lan mooy définition plan mi ngi nii nañ ñu wax nañu plan yi lii la ak lii ak lii ak lii maison de la jeunesse maison de la femme les cimetières le tribunal le la maison de nañu lii fii lay nekk ñu xam parce que li tax may insister wax nañ ko léegi village artisanal bi sept hectares lañ tàmbale ils se sont retrouvés avec trois mille. trois mille monsieur le ministre. je sais trois mille. et les deux mille trois cent. qui les deux hectares trois cent les quatre hectares fu ñu nekk le tribunal waxoon naa ko sànq on nous avait dit que lay nekk manqué na deux anamu xamuñu ko moo tax ñu wax ñu ne les les les les les les les équipements sociaux la ville lu mu war a defar les communes seen piscine seen centre nangam que l'administration et l'autorité chargée du terrassement nu disent que lii fii la lii fii la mais sur le papier kay mi ngi nii kay nañ ñu wax nañu kon plan bi mi ngi nii mën ngeen lire plan nous nous avons nos techniciens chaque mairie a son directeur technique vous prenez les plans comme que ñun moom dañoo sonn yéen dem leen ngeen defal ko seen bopp wa illaa te loolu sa administration du doxee noonu wa illaa ñu wax ñu ne ñu équipement yi fii lay nekk ak fii ak fii mais bëgg a ñëw fii ba ministre bi ñibbi ñu gëmloo ñu ne ñu équipement yi mënuñ leen a wax fan la ne te waa LONASE jël àll bii cité bii je l'ai ñu koy tabax ñu ñëw ne fondement du am ñu bàyyi à notre grande surprise dañoo gis rek ñu toll ci R plus 1 loolu la ñuy bañaan moo am monsieur le monsieur le ministre te suuf nag fi mu fi mu indi ay coow dafa bari ñun nag fii géej waaye ngeen ay dëkkandoo la monsieur le ministre moi j'ai une autre remarque à faire l'antécédent de ces titres la, le papier qui a permis qu'on donne des titres mm-hmm. le, le décret de classement mm-hmm. moo ko mujjee maanaam fii dafa am loo xam ne dañ ko jaayoon ba pare mm-hmm. biñ ko jaayee ba pare ensuite ñu def décret de déclassement aujourd'hui am na titre yoo xam ne rien que sur la base que dafa classé woon kenn mënu ko woon jaay. moi quand on me dit donc des titres antérieurs au décret des titres antérieurs ça c'est un. deuxièmement am na fi loo xam ne ñun rek ñoo fi nekk waa géeja way mhm. a des choses yoo xam ne ñun waa géeja way mhm. dañu war a def suñu ndëpp interne. parce que au sein de nous am na fi ñoo xam ne dañoo jaay ba pare. Mhm. avec ce qu'on est en train de dire la am na si loo xam pour régulariser lu ñu jaay la. Voilà la vérité. C'est juste pour dire que ce n'est pas seulement les autorités euh, déconcentrées. Il y a aussi l'OHAMNE, nous devons antérieur. Dans les collectivités, gisuñu benn délibération avons xam ne dans les mairies. Aucune. En tout cas, ma concernant, fekkuma fa dara loo xam ne en tant que maire mën naa ne base bii kat la ñu déclassé la ñu attribué borne frais de bornage a ngi nii délibération conseil municipal ce qui veut dire que derrière y eu des gens yoo xam ne papier yi ñu joxe leneen y a eu quelque part quelque chose qui s'est passé loo xam ne il est temps qu'on parce que li xew fii yëpp ci bande bi dafa am ay parties prenantes yu bari yoo xam ne en toute complicité lañ ko doon defee ça moom lu ma lu ma lu ma xam la moo tax ñu bëgg ñu auditer li ko dalee ci titre yi fi mu jóge ñi ci intervenir yëpp ñu xam ñan la parce que am na ñu fi def xaalis ci seen poche alors que lii ñëpp a ko bokk c'est ça la vérité te tamit suñ ko dee jox maire yi aussi il faut ñu xam ñan la ñuy ñan la ñuy attribuer parce que on ne peut pas aussi nous donner ça pour que ñu mën a régulariser ñu ñu jaayoon à l'intérieur loolu aussi c'est un problème boo xam ne ñun en tant que maire dañoo bëgg ñu ngeen ngeen ngeen xool ko bu baax parce que am na fii des problèmes yoo xam ne tey il faut ñu souligner ko. fond que dañuy ñëw rek ne bon c'est bon avance ça aussi il faut qu'on précise parce que dañ wax jub jubal jubanti bu ñu gisee loo xam ne dañ ko daan def loolu mooy andi problème yi da ñëw bëgg def projet ñëpp d'accord ci fekk yow avant loo xam ne ñëpp ko bokk état da ko classé ngeen jël ko di ko di moom di ko jaay ay problème la yan waaw ma def bi biñu defee attribution yi danoo jox ay nit seen notification am na ñoo xam ne jël non non non non c'est-à-dire que PUD problème mu PUD bi mais c'est ce que j'ai dit depuis le début mooy bu ñu associer woon les populations sur non seulement les équipements collectifs mais aussi dimbale popula je le dis li tax fii nekk une préoccupation majeure pour pour pour en tant que ministre de l'urbanisme c'est que ñëpp xam nañ ne Sénégalais le président de la République l'a dit dernièrement nit ñi dañu soxla fu ñu dëkk. absolument. donc on ne peut pas def un plan d'urbanisme ba nga xam ne bu mënee nekk c'est parce que population ya bañoon ñoo nangu ña bañoon nag bu ñu nangoo sooy séddale suuf boole leen ci bañ gis seen bopp. donc notification notification avant après yëpp bu amee te association amul mairie yëguñ population yi am sentiment que y a des gens venus d' ailleurs ñu ëppale ci suñ suuf loolu mooy andi ay frustration c' le point essentiel. mais la xam ne ce que j' ai dit ce que j' ai dit man man laa wax ni de. d' accord on est d' accord loolu la ñuy lancé. voilà voilà oui. gis nga bii mooy troisième plan. dañ la ñaan ngir yàlla au nom la population de Guédiawaye dañ la ñaan parce que ñu am espoir ñu ngi xaar y a un vent neex bu mu soufflé venant du gouvernement nga nga koy pilote ko super supervisé xamal y a un écho au sein de la population de Guédiawaye lii soo ko réglé di nga am ndam si kanam population si kanam yàlla gis nga lii nga sànqal suñu rongoñ tout c'est pas la la amul dara lu si wax on recommence à zéro. il faut recommencer à zéro. léegi de monsieur le dafa déglu il faut recommencer à man je je parle aux populations. ah mais vous le laissez terminer. a je parle au nom du population. on recommence yi toog tout le monde toog ñu waxtaanee ko mais nii nous sommes pas du tout d' accord sa yi sax d' accord uñu. sax man ñeneen population bi. bien noté hectares lañ commencé woon jékki-jékki trois la et ça revient sur la même question de la transparence de l'implication et du respect des choses qui avaient été dites dès le début donc je pense que c'est bon on va pouvoir continuer